Quebra, quebra. Quebra, quebra. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Adeling, adeling, adeling, adeling, adeling, adeling, adeling, adeling, adeling, adeling, adeling, adeling. Gambia, Gambia, Gambia. I love you. I love you. Gambia, Gambia, bia, bia, bia, bia, Gambia, bia, bia, bia, bia, bia. Gambia, bia, Gambia, bia, bia, bia, bia, bia, bia. jamele foto Gambia masale foto Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya jamele foto Babili masa anibola Babili masa anibola Babili masa anibola Thank you. Shit, bu ma neexoon sax best of fii rek laa koy tëj ñu tàggatoo ñu dem ñibbi this is just some a spectacular performance this is real ambiance. this is real music Mane ne bu fi emoon mu neex xam ngeen ne li ngeen jot a gis nii ku ne neexut rek da nga cee bokkut rek Koto nice Koto if I grow up I wanna be like you dress like you walk like you and talk like you waaye nag guddi bi mënumaa jàll rek ah, suñu programme bi a ah, best of ah, te nag duma ci sargal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëwkat yi designers yi nga xam ne bu ñu solee mu rafet bu ñu solee mu yànja ñoom ñoo tax ñi ñoo xam ne la Euh, lu ñooy def rek euh, pour taaral euh, GRTS la taaral li nga xam ne moom mooy a tele bi di ci nuyu ki nga xam ne moom mooy a Sawaalo Couture Sawaalo Couture nag nekk pipeline di ci nuyu Ndey Awa Ndey Awa nag is just opposite Fajara War Cemetery ñii ñu dee jox yére te duñ ci fay dara duñ leen laaj dara ba tey ku mel ni ñoom a Caan Kan bés bi seen bés la International Women's Day ngeen wax euh, Belgium Couture tamit fàttewuñ leen ñu ngi fa jaara Belgium Couture ñoom i tamit ñu ngi béy seen waar ci wàllum solal ñi nga xam ne ñoom ñooy a présenter ji ATS yi Aïda Sène Konté mu ngi ci biir moom i tamit euh, taxawaayam gis nañ ko euh, si yu yëre yu baax yi nga xam ne moom nga ñu ne jox ñuy sol di ci nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Ata Ata Creation Ata Fashion Ata Couture tànnal bu la ci neex la ah ñu ni neen eh, lu ci gën a bari ñoom ñoo leen dee gën a ah, solal waaye nag eh, fi mu nekk nii daanaka li ma desee si waxtu bareetul waaye guddi gii dama bëggoon rek eh, ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy artistes yi Gambie dégg la dinaa leen sargal rawatina nag artistes yu jigéen ñi parce que waxoon nañ leen ne international ah, women's day lañ nekk ak week bi yëpp sax ah, weer bi yëpp sax yëpp ci màggal taxawaay jigéen lañ waaye artistes yi Gambie dégga euh, dégga waxtaan wax dégga si la nekk amoon na time suñ musique bi macha allah alhamdulillah waaye li ko dooree the mid of last year dugga si euh, the end of the year ba fu ñu nekk nii suñ musique dafa xaw a dem ci suuf tuuti te loolu artistes yi war nañ ci mun a bàyyi xel dañuy waxtaan rek moo tax ma jaarale ko suma programme yi a best of Gambian uh, music bi mu ngee dellu gannaaw tuuti lii ko waral rek mooy artistes yi dañu gée uh, géej a génnee li nga xam ne moom mooy album te music bi du mën a dem faw rek artistes yi liggéey artistes yi teg ci kaw taabul bi loo xam ne is consumable ñu joxe loo xam ne dina jaral nit ñi ñu jënd seen CD dina jaral askan bi saa yu Gambian artistes yi wootee ñu dem. waaye ngeen jàppa ko rek fi ngeen ko jàpp daaw daawaati jéeg ba ren dara lu lu lu ees ñëwut kon ñu ngi leen da ñaax ngeen gën a góor góorgóorlu rek parce que góor góorgóorlu rek moo yore musique bi góorgóorlu rek mooy tax musique yi Gambie dem kanam bu leen ma mere nag ah, dama am yéene bu baax rek ci yéen ah, ma xam ne am na loo leen mun waaye lu des rek mooy faaw ngeen liggéey parce que liggéey rek moo wóor di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di leen jox ah, dox daje this is just a tip of the iceberg best of Cheikh Tidiane dellu ne sayuma delorek ma delloo rek mu war fee gën a neex kon gani ñu fanaan samedi bi neex bu ëllëgee dimanche ñëpp relax from me bye bye special thanks to my cameraman guy MCR ah ñoom Cheikh ñoom ñëpp jàpp nañ ci bagage yi ah Kéba thank you very much Mary ah gars ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. Until I see you next week, bye-bye from me, Tijan Jani. Ciao. lamb yéen na ngeen def e loxo ci kaw ma xool waay ci kaw ci kaw fi ku fi def lu ku fi def lu na nooy yow fas lay di say na ma Gambia ndax ñu bëgg Viviane yow yóbbu ma Brikama wala Serekunda Banjul ba kaw fu mu ci mën a doon ma foog ne fa laa juddoo